gox bi nu duppee Tawfekh nekk ci Touba Tindodi recevoir délégation bu jeunesse en marche vers 2019 ngir nag jébbal leen seen ay signature lu ñeel wàllu candidature Macky Sall ci élection yi di ñëw délégation bu jeunesse en marche vers 2019 nekk ci biir parti bi di APR dajaloo woon nag ñëw ngir amal inscription yi bokkoon na ci coordinateur bi ak coordinatrice bi ak membre de bureau yi ñëw nag teew ci Tawfekh Tindodi leeral lu bari. Euh, comme parrainage bi tamit ni ngeen ko gisee jeunesse en marche fas yéene ne fii la lancé programme am yaakaar naa ne euh, liggéey bu mu liggéey durant six mois. tax na ba tey euh, parrainage bi li ci jeunesse en marche fas yéenee def amul benn responsable bu nekk Touba boo xam ne dina ca fekk jeunesse en marche ànd kook son excellence Pate Diakhaté mi nga xam ne wax dëgg yàlla moo ñu ciy jàppale nga xam ne lu mu ndaw ndaw vingt cinq mille fils fas yéene nañ koo enregistré ci biir dëkk bi loolu yaakaar naa ne li ñu ko may mooy liggéey bi nga xam ne yàgg nañ koo liggéey suñu diggante ak askan wi. diggante démb ak tay la ngeen defee ko gis nañ it yéene ji ngeen ci def doxee gis nañ ko ndax ku la ne démb dinaa ñëw fii ànd ak yow parrainage bi mu ñëw tey fekk fi mbooloo mi biñ ñëwee ba léegi ñu ngi remplir fiche yi au moins remplir nañ fi ay 200 personnes. mu doon lu am solo loo xamante ni niñ ko defee fii tey buñ ko defee ci beneen quartier suba def ko ci beneen quartier ginnaaw suba foog naa ni jeunesse en marche kenn du ko mën ci parrainage bi. fii nag benn doléance la am mooy ndox moo fi naax saa yi benn robinet pour lu tolloog junne ak lu tegal ci ay buntu kër loolee sax nag tax na jeunesse en marche nii nam ko doon defee si yeneen gox noonee la engagé wu si lu yàggul mu indi leen adduction d'eau ba ndox mi mën a wala ngaan. bidon yee fa nekk wallaahi asim di nga déet maanaam boo doon am sax saret bi xam nga boo doon am saret bi fay ko mën ngaa yor téeméer bi nga war a fay waaye ki la koy indil pour nga fay ko dalay jafe ndax koo kooku am na yeneen yitte yu muy doxe kon képp koo xam ne taxaw nga fi ne di nga nu mayam ndox àjjana de nun moomunu ko amunu ca it wala wun ca doon participer mais wallahi asim ku nu andilam ndox fii bu fekkee ne liggéey nan yàlla dara lu mu nangu barke sëñ Bamba di nga dem àjjana di leen wax ne damay gën a dëggal rek li sama frère Talla wax gis nañ seeni jafe-jafe ci wàll ndox mi waaye dañuy wax ne rek yéex a yëg gi la ñuy naqarlu waaye du leneen parce que ku dem fetto barki démb junniy mètre di un kilomètre ku ko yóbbu déplacé ko ci ndox yóbbu ko daanaka dëkk ak dëkk boo ko boo ñëwee fii gis fii jafe-jafe bu toll nii du mën a rëy ci yow ndax bële moo ko ëpp. ndax bu ñu sañoon fépp fa sunu nit nekk say jafe-jafe. buñ ko munta dindi ba mu jeex tamit ñu wàññi ko ba mu wàññeeku ba tax na dañ fa faa jiitu waaye yaakaar naa ne kon weer wii ñu nekk di ngeen ci mën a am ndox waaye nag yàlla dogal na waa jiituñu fa ba nga xamante ni weer wee di ñëw incha allahu rabbi danañ yëkkati lu leen bëgg ci mètre ndox ñëw jàppale leen ba ndox mi dugg si fii ci dëkk bii di taw tawféex parce que ñun benn objectif la ñu am te mooy nit ku dëkk Touba ak ku mën a doon sa jafe-jafe buñ ko xamee danañ def lépp lu ñu man pour régler ko léegi nag kon ñu ngi leen di wax ne jafe-jafe boobu wax nañ ñu ko te incha allahu dañ koy saafara te programme programme bi nga xam ne am nañ ko fii ak màggal war na chaque weer bu nekk ñun dañu ne woon chaque ci at bi yëpp weer bu nekk dinañu dem ci benn quartier ñu def fa programme boo xam ne dafay jëm ci social. population bi kontaan loolu manifester ko si mbégte yi. waaw wax a ñii di jeunesse en marche si di rëb ñaari waxtu collecté nañu lu tolloog ñaari téeméer ak lu tegal si ay signature fas yéene nag demaat yeneen tournée si biir dëkk bii waaye nag ñoom nee nañu bu ñuy dem duñu demee loxo neen fépp fu ñu teg seen dina nu saytu seen ay jafe-jafe ngir buñ fa delloo siwaatee solution yi yemb